salaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar euh, man maa ngi tudd Ibrahima mbay di coordonnateur UCG euh, pôle centre bi nga xam ne mi ngi regroupé euh, région Diourbel ak région wu Louga donc li waral suñ teewaay fii mooy ni ñu waajale woon bés bi bésu xasida yi nga xam ne dañoo joxoo jotoon ndigal ci suñu coordonnateur national muy monsieur Mass ba nga xam ne lépp lu bés bi laajoon rek ci wàllu moyen ak wàllu personnel ñu taxawee ko ba nga xam ne bis bi dinañ ko liggéeyee ànd ceeg euh, daayira Muxaddamatul Xidma ba nga xam ne lépp loo xam ne nii war na ci rek ñu ñu ñu def ko. donc nag euh, ci loolu ñun ñu ngi ko tàmbali woon biñ ne suba la bis bi ci ngoon gi lañu ñu commencé woon liggéey ba ci guddi gi li wër jumaa jeeg yëpp ñu ànd ko. liggéey ko désensablé ko mais euh, en même temps aussi ñu indi woon fi ay poubelle yoo xam ne nii dañ ko tegoon ci fépp foo xam ne nii mbooloo dafay am ba nga xam ne niñ koy liggéeyee dinañu yombalal ba itam du taqal euh, barab bi donc euh, biñ ko defee ba pare itam ak oto yi ñu fi indi ak kees yi loolu yëpp gis nañ ne am na njariñ njariñ loo xam ne nii daal wax dëgg yàlla am nañ ci am nañ ci euh, contentement wala satisfaction sax su ma ko mënee wax noonu euh, bien vrai que à chaque fois nit looy liggéey rek di nga ci xalaat amélioration mais wax dëgg yàlla moom dugg nañ ci bismillahi rahmaani rahim génne nañ ci itam alhamdulilahi rabbil alamin donc wax dëgg daal yàlla daal di sant itam di gërëm euh, daayira bi parce que nit ñu ko yombalalee ci liggéey bi ñu ànd ko même ci bés bi itam éléments yi dugg ci biir nit ñi lépp loo xam ne yore seen mbuus fépp fu ñu gis salte ñu ànd kook ñoom itam jël ko euh, aidé nañu ci lu bëri ba nga xam ne daal wax dëgg yàlla même nii nii soo wëree li ngay gis ci mbalit ci jumaa ji daanaka du bari te fii mu toll nii équipe yi ñu ngi aussi sur le terrain di liggéey ba nga xam ne daal fileeg suba ku ñëwaat ci jumaa ji doo fi gis benn mbalit kàddu yooyu daal dañu amoon muy sant kàddu sant ak gërëm jërëjëf. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa ñu ngi nuyu tey ziyaare mbooleem ñu bokk ICC ci seen turu jëwriñ di wax ci turu daayira mu xaddamatul xidma ni ko waxee rek wax dëgg yàlla ni mu waaje woon ci jumaa ji ba mbalit du fi des du taqal fenn du fëndal fenn du tooyal fenn taxawe na ko ni mu ko waxe woon indi na ay jumtukaay yu dëppoo jamono taxaw ànd ak ay membres yu yaru yu neex a waxal yu amul talibe dugg ci biir nit ñi góor ñi dem ci góor ñi jigéen dem ci jigéen ñi ñu def liggéey boo xam ne nii suñu xol na ci guy kon daal naa ngi wax ne liñ séntu woon ci ñoom def nañ ko nu gën ni yaakaare woon kon ñu ngi ñaan waa Touba gépp ñu roy ci doxin wi ñu gis tam xew léegi mbalit moom soppi na aw turam kon na ñëpp xam ne lu war a tàqale la lu war a ber la tey ñëpp ko àndandoo xeex ko ndax su mbalit mi jógee ci kër yi ak dëkkuwaay yi ak mbedd mi nag dem fa war a dem wér yaram day gën a yomb day gën a barkeel kon ñu ngi sant bu baax di leen gërëm di wax nag ñu waaj ndax màggal ñëw na ñu ngi ko àndee woon nii tamit ñu àndewaat ko noonu ba sëñ bii li mu bëgg ci jumaa ji muy cet gi seen warteef muy jàpp ci mu mel na mu war a mele ñu ngi sant di gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.